ak cofeel di ziar xalif généraux yi di sàkku ci ñoom ñaan waaye itam di leen ñaan ñu yàgg fi lool te ndax kiiraay lañ ci réew mi macha allah di dem ba kër maam El Hadj di nuyu xalifa bi sëñ Maniru Njëgeen Njëgeen mu seeg maam As yàlla na yeen bi oyof tooy ci kaw macha allah waaye di nuyu sama frère Serigne Ousseynou Njëgeen macha allah noonu laay jaaree nuyu euh, way juru borom kër gi muy Serigne Màkki Njëgeen mi nga xamante ne macha allah moo ngi ñaan bu baax te ñaan it ak si lool Njëgeen mu seeg maam As waaye di nuyu sa soxna su tedd su Ana Seck duma mukk sama sëriñ sëriñ daaw da njëgën macha allah di ziar ñi nga xamante ne ñu ngi ci hôpitaux yi ak dispensaires yi ak cliniques leen ñaanal yàlla taw féex ak tay séer yal yàlla fëgg seen bopp te bañ a tëral kenn rawatina sama yaay ji tëdd di ko ñaanal yàlla fëgg boppam may ko gudd fan gu ànd ak wér lool sama baay aw fan te dese barke bi amin yaa rabbi macha allah noonu laay demee di ziare way way dawlu yi di leen ñaanal fanu tëdd yàlla na leen gënal fi rawatina sama yaay ji ma nga xamante ne lu nekk ci euh, borom kër gi moo ko ci def macha allah di ko ñaanal yàlla xare ko aljana firdawsi yàlla yóbbu ko ci barsaq Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ko ñaanal sama baay bu tedd boobu Seck ñoxor macha allah alaaji Daawda Seck fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge ak mboolem ko mu fa fekk ak ko ko fa fekk di dem ba ci prison yi ñi nga xamante ne dañu def erreur judiciaire caabi féete leen ginnaaw maa ngi leen di ñaanal yàlla génn leen ah, macha allah ndax ñoom mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk delloo si leen ci société bi ak seen njaboot macha allah te la leen fa yóbbu woon yàlla bu leen fa delloo amin yaa rabbal alamin ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm yàgg feggoo sama ndeyjoor Baye Bille mi nga xamante ne macha allah mu tedd mi kenn dootu ko présenté ci téléspectateurs yi macha allah waaye di nuyu euh, suñu collègue bi nga xamante ne macha allah dafa waroon a ñëw te am teq-teq muy soxna Assa Badiane di ko ziar bu wér a wér Baye Bille kàddu noonu. waaw ah, asalaamaaleykum soxna Fatou ñu ngi lay nuyu di la ziyaare hmm. di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk yi nga xam ni yéen a am habitude di seetaan seen hmm. vingt 24 TV ba pare hmm. ngeen fidel ci ñu ngi leen di nuyu waaye di jël nuyu bi yëpp di ko teg a teg mooy euh, DG NJ Ndiéguène xam ni moom bu nga ko joxee dana ko jox sëñ Muniru bu ko ko joxee dana ko wasaa ci cees képp ku mu nuyoo waaye dem mhm. nuyoo dana fa yegg soxna Fatou waaye di siyaar képp koo xam ni eh, yaa ngi ci dëkk bi ci la siyaar si yow ma ashora bi muy tamxarit gi ñu génn ñu ngi mhm. leen di baalu àq mhm. di leen baal àq au nom de seen 24 TV. di leen wax ni bés bi lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci lépp loo xam ne fas nañ ko ci yal na suñu borom nangul ñu ko. allahumma amiin yal na yàlla boole ñu si xaaj bi jëm dëwën. amiin yaa bu loolu weesoo may nuyu samay bokki bopp soxna soo xam ni dama koy beral nuyoo muy soxna Ndeye faatu Cissé. Mhm. ndax daf maa jàmbata ni ma yow soxna Fatou damay dégg ngeen di nuyoo rek waaye man du ngeen ma ci boole macha allah kon soxna Ndeye Fatou Cissé yow mi nga xam ni mhm. fidèle nga ci seen 24 TV ñi ngi lay nuyu di la beral nuyoo ziar nañ ko bu baax yii mu ñang bokkoo ko ak mari Diallo bokkoo ko ak mère Mignel bokkoo ko ak mère Thiané yow su nuyoo bopp la kon sax naa ni soxol sedd na soxna Fatou. Mhm. soxna soosu ma profité wax la ko. Mhm. dafa lay suivre. Mhm. di suivre émission bi. waaye daf ma koy jàmbatal fu ma ko gis mënuma émission bi man nuyu nga ñëpp te nuyu leen ma. nuyu ko bu baax. moo tax ma lay dama la koy delloo. xam naa ne yaa ma ko gën a fàq nuyoo. macha allah waaye nuyu bi daal mat nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan. émission bii. di la wax ni. Mhm. ñu ngi ñu doolee ñaanal. Mhm. waaye ñu ngi lay dellu ñaanal si ashora bi. Mhm. yàlla boole ñu si xaj bi jëm dëwën. gën ñu fee yàggal. amiin comme koy waxee ñi nekk ci prison bi def erreur judiciaire. yal na suñu borom oyofal seen pen. allahumma amiin jiitu yal suñu borom yu dolli yërmandeem ci moom. allahumma ñu nit ñi fi des it yal na ñu gën a yàggal. allahumma amiin hurmati allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam kon soxna Fatou nuyoo baax jërëjëf fay bi nga dugg see moom macha allah neex na trop ah, soxna soxna Ndeye Fatou Cissé macha allah bu bàyyi bile saw ñoo lay siyaar bu baax a baax a baax Cissé ñun yéen rek lañ fi nekkal ndax nag defaluñu yàlla lu tax ñu toog fii doon ay waxkat waaye defu leen yàlla yéen du tax ngeen toog foofu di ñu seetaan hmm. di taataan suñu xel yi nga xamante ne macha allah dafa doye di lool kon ziar nañ la bu baax a baax Cissé di la tatagal di la jox sa wàcc waaye di nuyu sama xarit bi ci jaxaaw hmm. ki ma doon Maada Fall ñu naan ko Awa Fall macha allah ki nga xamante ne moom daf maa gis rek bëggal ma boppam macha allah di la wax na la maa la gën a bëgg Awa Fall depuis jaxaaw man bëgg naa la lool te dinaa la seet si incha allah nga xam ne bëgg goo gis yee ko koy fay macha allah bay bile ah. ñun defa defaluñu yàlla dara lu tax ñu toog fi jaami ñu bëgg macha allah bari na ñoo nga xamante ne dañuy bégge di ñu safoo waaye delloo nañ leen ko bu wér a wér a wér comme ni nga ko waxee di ziar ñëpp. macha allah di ñaan yàlla boo luñ ci xaaj bi jëm déwén te déwén bu naree ñaaw yàlla na dàq ren macha allah waaye di nuyu sama président directeur général muy NG Njegen mi nga xamante ne macha allah Njegen mu seeg maam dem Demba Yoro kenn du moom ci même réew ziar naa la bu wér a wér a wér yow di nekk di wax si yow sax dañ may féetal ak yow ba mu ba mu ëpp lool lool lool mais maa ngi ñaan suñu borom bi rek may la wér gu ànd ak gudd fan man wér rek laa lay ñaanal te xam ne bis boo amee wér macha allah da nga ne da nga nga ambitieux kon bis boo amee wér di nga jëmalees waxuma la sax sa askan waxuma la sa entourage waaye di nga jëmale réew mi kanam incha allah rabbi jërëjëf njegeen mu seeg maam As euh, bàyyi bile mu mel ne tey suñu temu tey euh, mooy immigration clandestine bi nga xamante ne euh, daf fi nekk temps yi macha allah indi fi njàqare gu mat sëkk ci xol yi doomu aadama yi ndax ku ne xam na ne njureel dafa metti mm-hmm. nga jur sa doom yaa xam benn la yaa xam ñaar la muy góor nga yor ko di am si moom yaakaar ah xale yi nag mel ni dañu sonn lool lool lool ndax foo war a tekkee tekkee woo fa foo war a dagge buumu gàcca war faa faj buumu gàcca war faa fomp ay rangooñ defuloo ko fa ba tax tey sa xel di nekk ci kene yow ah macha allah barza war a bar sàq rek xale yi di ko wax ma koy dégg si ñoom dem Barcelone toog liggéey wala dem Barzak mu nekk lu metti loo nga xamante ne tey ku jur doom euh, fi mu toll nii am nga lu la naqari donte ñi ngay gis boo duggee ci internet bi mhm. xale yi ndox mi di leen wëq comme ay bàyyi ma mhm. macha allah bàyyi bi la mu nekk loo nga xamante ne keroog bi ma ko gisee sama rangoñ dafa tuuru sama dënn saa përi fees fa dell ñu di leen génne ndox ñi ndox mi di leen waq ñii ñu di leen jëli mu nekk loo nga xamante ne dafa metti bàyyi bi lee toog ci sama xol bi ma naqari ma ba thème bi tey vraiment damay forcer rek mais thème bu difficile la ci man mais dinañ forcer dem ci ndax sénégalais yi ñoom ñoo ko ñoo ko mm-hmm. ñoo ko bëgg macha allah dëgg la soxna Fatou tey moom defe naa mm-hmm. thème bi nga abordé mm-hmm. nañu fi thème bu ne waaye bii bokk na ci li nga xam ni lu ees la dafa mel ni góom bu bees boo xam ne tey jii da nga nañ ko faj mhm. ndax góom bu bees moom ku ne xam nga ni boo koy faj mhm. raxas beek nettoyé bi day xaw a saf mhm. moo tax euh, émission bi tey dafa xaw a diis dafa diis ndax li ci wàcc si ay doomu aadama faatu ci géej gi bari na bari na naqari naa wax te mënuñu accuser kenn waaye nag bu ñu ko xoolee si cadre bi nga xam ni moo ko sabab ndax lu ne rek sabab bi la euh, waajur yi dañ ci am responsabilité xale yi am si responsabilité mhm. te responsabilité xale yooyu mhm. ba tey dañ koy delloowaat ci waajur yi ñoo ñoo leen yóbbee responsabilité boobu mhm. Euh, ni ma koy waxee noonu ni ma ko bëgg leerale mooy damay def benn métaphore benn méngale ndax ñun Sénégal dafa am lu ñu tàmmoon te loolu dafa représenté woon société bi société bi di dox muy lan bu ñu mosaan togg añ ba yekk ko Mhm. dañuy lal teg bool bi mhm. papa yaay doom rak nijaay umpaa ñëw tiim bool bi mhm. kenn ku ci nekk da ngay jàpp ndab li nga téye ko mu dëgër mu dëgër ndab loolu mooy représenté péncu Sénégal gi su ko defee pénc mi du yëngatu du daanu kenn ku nekk nga tibb di sex mooy kenn ku nekk nga def ci li nga war a def mooy entreprendre li jëfal réew mi dëgg waaye ndawal li mag ñi ñoo daan jël di jox xale yi xale amul woon droit dem ci diggu ndab li laal ndawal. dëgg la mag moo ko doon coppati di ko ko jox. Mhm. su ko defee bu ñu paree ñu xool kan moo tuur kon orga yàlla ñun organiser woon nañu suñu société. Mhm. biir kër gi. Mhm. parce que éducation bi ñu amoon. c'était pas national. mais dafa nekkoon une éducation familiale d'abord. Mhm. loolu la ñu ñàkk. ndax bu ñu jàppee bool bi du yëngatu. Mhm. bu mag mi di tibbal xale bi di ko jox ndawal. Mhm. waaye mag bi su joxatul xale bi ndawal. kenn jàppatul bool bi. gaal gi dafa yëngatu. mag mi di xëccoog xale bi ndawal li. moo ñu dal. mooy mag ñi. ñu jot pour yar seeni doom. éducation familiale bi mhm. la ñu perte mooy la base mhm. dañ ko perte si ay anam yu bari loo xam ne duñ ko wax mhm. looloo wala xale bi dafay am xaal day am naps pour dem foog ni bu demee dana tekki parce que il sa cherche dafay wut boppam ndax nga nekk ci kër kenn di liggéey wala ki jàkkaarloog seen kër ngeen maase mu faj gàcce yow fajo gàcce bu dee borom jom nga dangay am kersa boo amee kersa dangay dem ba da ñëg Mm-hmm. boo jigee dee da lay jaral loolu tukki bi dala koy jaral day fekk ne amuloo formation de base mm-hmm. donc ni kon nañu delluwaat ci biir kër yi mm-hmm. toggaat xale yi ndax xale bi nga xam ne mi ngi takk di dem dafa jàpp ni moom li muy gis soo ko waxee lu mu lay wax keroog maa ngi seetaan si télé bi ñu ni ko yow li nga cinq cent mille wala ngaal mu yóbbu la boo ko toogoon fii est-ce que doo ci ubbi benn dara nga nga nga dara mu ne kon dañ ma koy leb te duñ ma ko fay Mm-hmm. xam googu xam-xamam dafa gàtt mm-hmm. waaye am nañ ci solution dinañ si ñëw si kanam mm-hmm. waaye xale bi nga xam ne mi ngi dem dafay gëm ni jàpp na ni moom bu demee dafay tekki ndax tekki lay gis ba dootu gis dee bi dootu gis yoon bi ndax dafa am lu may faral di wax xam nga dafa am lu ñuy wax distance physique ak distance métaphysique distance physique ni ma ko mën a tekkee mooy tey ji boo jëmee dakaar da ngay sangu sa biir kër deux heures day jot nga sangu sa biir kër. Mhm. génn jël taxi dem garage fay oto génne mille cinq cent wala trois mille jox ko oto bi oto bi daw vingt trent quarante minutes mu dugg dakaar nga wàcc jël taxi egg fekk cinq heures jot nga doo ko egg fi nga jëm. Mhm. loolu da nga consommer distance physique bi Thiès ak Dakar. Mhm. waaye bokkul ak Rachid mi nga xam ni. mi ngi Thiès am néeg Dakar. mu xalaat la mu fàtte biir néegam xel mi bu jógee si bopp bi directement day dugg si néeg bi du ma sax seconde. Mhm. loolu la ñuy wax distance métaphysique. Mhm. xale yi fi mu ne nii doxatuñu si distance physique bi. Mhm. waaye dañuy toog fii gis tekki alal ji nekk Europe. jëm si loolu du ñu xam ne yoon wi distance physique bi la ñuy fàtte. fekk ni distance physique bi mooy ba mooy géej gi nii. kon am na loo xam ne mag ñi da ngay gindi xale yi yee leen xale bu yeewul mën na dugg ci débauche. ndax lii. du responsabilité xale xale yi ciy dégg ñu si bëri amuñu fanweeri at. Mhm. ñu si bëri bëri amuñu fanweeri at. Mhm. c' est parce que dañoo yeewul c' parce que fa ñu jóge mhm. yeewuñu leen. ndax bu demee ba yaay. wala papa. di sotti tontinam. di jox doom nan ko demar barzak. kooku xamul li doom di risqué. donc moo tax loolu loo xam ni la. mun nañ ci waxtaan lu baree bari faatu. waaye. suñu borom yalna yalla gindi gindiwaat doomu adama yi ubbi suñu xel yi te nañuy delo suñu bop ci suñu borom ndax ñun nak fi Sénégal diine chrétien mo fi am ak diine julit waye suñu borom dafa am lu mu wax ci alquran man lool la gëna gëm ke li ñuy wax parce que bo démé télé ku nekk da ngay wax waye yàlla li mu wax mo gëna wóor wallahu yarzuqukum man yasha'u bi khayri hisab ku nekk li nga wara am suñu borom ne na man maa la koy jox. Mhm. bu séemoon mu neex waaye bi xayri xisaab la wax. si mhm. loo xam ni du am lijjanti du am coono. Mhm. kon boo toogee foo toog rek dina la jox li nga bëgg. loolu nag loolu ñun ñoo si war a yar gën yi. yee leen ci ba seen xel mën see gindi. kon soxna Fatou ma delloo kàddu gi de. dëgg la ñun ñoo si mën a mën a xale yi ba seen xel gën a gindi mel ne li ma fi ma déggee nga waxee mooy euh, maanaam. Euh, nit ki bu toogee liy wërsëgam allah kulli aal dina ko fekk. suñ borom loolu la wax. macha allah Euh, baay bi lee comme ni nga wax ne euh, yaay yi dañuy sotti tontini di jox xale yi ñuy dem parents yi di si ànd dëgg la am na ñoo nga xamante ne dañuy nëbbatu seeni parent dem mais am na ñoo nga xamante ne ci ndigal la ñu dem mm-hmm. euh, comme xale boobu nga wax ne tey nee na cinq cent mille bu ko investiroon fii macha allah ñu leb ko ko Sénégal neexutu liggéey baay bi le ndax tey jii man su ma dee jaay crème nga gis crème bi di dox cinq cinq bu subaa nga ñëw teg sa potu crème sama wet. Mhm. jaay daal di may noonoo utal ma ut parti prise noonoo daal di dugg mhm. maanaam senegal lu mu gis moroomam di def mu gis bu subaa mu sol ci voile bu bees wala xartum dina ko dem jëndi. Mhm. ne kii li muy jaay am na ci dara. ba tax na liggéey Sénégal neexatul. Euh, maa ngi seetaan benn image boo nga xamante ne tëngéej la maanaam jour boobu euh, caw leen koñ ba yëpp dëj plus de quinze personnes ay xale yu góor yu ndaw lébu gi dañuy teel a takk jël soxna <laughs> macha allah am na koo nga xamante ne wàcc na ñaari doom <laughs> jabaram mi ngi nekk en état mu des ci géej gi est-ce que kooku tey xam naa bu fekkonte ne mi ngi dem si géej gi dana ca des est-ce que dina dem soxnaam ne tàggu ko ne bisu talaata la fi jóge tabaski nañ ba pare keroog bàyyi bi lee sama rangooñ dafa dal sama dënd kooku uti dong la doon def jom mm-hmm. euh, mu mel ne tey am na ci koo nga xamante ne tam papa mooy wax ñaar la si am mm-hmm. ñaari doom d'après ni ma ko déggee mu wax nekkul ak seen yaay mais papa ji am na beneen soxna am ay tout tànk daan dundal ñooñu ba ñu nekk mag la ñu war a mën mënuñu ko ñu dajale ci géej gi ndax am na ko nga xamante ne euh, benn waay ji frère la ko def ci koñ bi moom la daan dénk xaalisam mm-hmm. mais waa ji nee na bi xale bi di dem tàggoo ko mais seen papa yëg na dem bi ba ñaanal leen ndax ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk tudd na seen tur ñëw na papa damaa bëgg a dem dugg ci gaalu diw mhm. mu ne ko yor nga paas mu ne ko waaw ne ko mbaa ñeme nga mun ne ko waaw mu ñaanal ko kon ka def loolu ñaari doomam macha allah yaakaar rek la si amoon dogguma la defaatu mhm. xale yi mhm. dañu am jom ndax xale bi toog tey ma tekki par force dafa am jom tey il mag bi coaché ko mag bi ñoo war a coaché xale yi man dinaa la si wax ay exemple gis naa yàlla dimbali na ma gis naa ay rescapé ñoo xam dañoo demoon ci géej yàlla def seen gaal toj yàlla def deewul ñu récupéré lu ñu bisiwaat mhm. gis naa ci mais da ngay gis ay nit ñu am jom gis ay xale yoo xam ne xamuñu woon dinaa si nettali benn anecdote damay dem Mali ma jël bus bi ma dugg si ak ñaari booy mais ni ma gisee xale yi rek may waxtaan ak ñoom sama xel jox na ma ne ñii dañu bëgg dem jaar yoonu libi bi dem si àll bi dem si désert bi mhm. boobu yoonu libi bi moo amoon may waxtaan ak ñoom ba ñu wax ma loolu waaye Fatou ci tënk. Mhm. ndax du émission bi damay waxtaan ak ñoom ba booy dëpp seen yoon yàlla dimbali ma kenn ki ma boole ko ak sama rakk boo xam ne directeur entreprise la. Mhm. mu jël ko muy liggéey ba tey mi ngi dakaar keneen ki mi ngi Mbuur boole am na ku ma ko boole mi ngi liggéey. seen yaay ba tey daf may sant. léegi ñoom léegi nii la ñu doog gindi ni li ñu doon def risque la mhm. ndegam loolu yàlla dimbal nañu mën nañ ko waxtaan ak ñeneen mhm. nañu wut ay école mhm. wala ay centre di woo booy di waxtaan ak ñoom ndax kenn yaratul ko xale si biir kër yi faatu kër yi la ñu bàyyi ndax bo bu kër goo xam ne maa ngi jégalu ci borom kër ndax borom kër laa waaye kër goo xam ne boo xëyee yow góor gi yaa ngi tal si looy lijjantee xaalis. Mhm. jox njaboot gi. Mhm. soxna si mi ngi tal lu mu lijjante xaalis jox njaboot gi xale boobu dafay frustré du yaru. du waxuma yaru pour réew waaye du am ku ko gindi. Mhm. léegi su ko defee si mbedd mi lay jëlee information. am na loo xam dana ko wax yaayam. loolu dana ko wax papaam loolu du ko wax kenn du koy denc. léegi nag su gisee ku mel ni kii tekki na. man tam dama war a tekki lay gis. ku ko defee jomam. dafay dem ba day nekk si moom benn naps day nekk ci moom benn feebar. Mhm. boo xam ni dem ñëw rek ba ca des mooy dangay xam nit man xam naa ci koo xam ni dafa dem gaal gi toj mu dellu si. Mhm. mu demaat gaal gi toj mu dellu si mu demaat. tey ji yàlla dimbal na ko mu ngi ànd te tekki na jabaram ak doom yëpp la yóbbu. macha allah kooku xaritam mun loo ko wax lu mu soo wax mun la diw nii la def dem na te tekki na. Mhm. kooku loolu mooy wërsëgam. kooku loolu la moom waaye du ñëpp ñoo am chance boobu. dëgg la ndax tey jii li gën a récent may leen di si ndokkal di wax yal na suñu borom nit ko. mooy ñaari gaal yi bi déparé Lompul. Mhm. ak xaw ma téeméeri nag nangam ak bi déparé Fass booy nga xam dañoo dem ñu couper internet bi comme ni nga defee nii kenn xamatul su ñoom dara ñooñu tey seen seen waajur na nga jaaxle toog. billaahi. koo xam ne gaal gi départ na ñetti fan xamatoo ci moom dara GPS doxul dara doxul foo koy xamee donc yal na yàlla nit ko jom bi si ñoom ak ñàkk xam-xam. Mhm. waaye mag ñi tamit irresponsabilité dab na leen. Mhm. ndax lu ci ëpp lu ci ëpp waajur dañ koy yëg lu ci ëpp laa wax. Mhm. waajur dañ koy yëg te bu ñu ko yëgee day fekk ni doomu diw bi dem na concurrence moo leen si dugal. mais solution bi nga xam ne da wax naa ko léegi sànq maa ngi si waxtaan bi may waxtaan si problème mu Fass Boy bi. jël fukki xale yu bëgg nga leen an ko ñem si di yi ñu la maa ngi ne nga recruter fukk. kenn ku que 500 mille mais 5 millions la bu ñu amee 2 hectares de terrain gas fa forage mais def fa maraissage comment c' ñetti weer yu ne nga jaay am am 500 wala benn 800 cest à dire il faut entreprendre c' dire ñun li ñu yarul suñu doom yi mooy ñu tàmmal leen entreprendre à dire entrepreneuriat ñu jàngal leen ko ci biir kër gi wax pas nationale elle est familiale si biir kër gi rachid war na xam ni su ma nekkee ci kër gi liggéeyuma war naa mën a raxasal sama jabaru mag bi ndab war naa mën sama yaay du ma xaar mënu ma xare yi amuñu ngooñ ma dem parce que loolu daf ko war ci biir kër gi mu xam ne am na lu war ci biir kër gi mhm. bu demee loolu ñor ci moom ñëpp buñ ko amoon ci quartier bi dañuy xam ne am na lu ñu war ci quartier bi mhm. la ñuy xamee ne am na lu ñu war ci réew mi mhm. mais léegi kenn ku nekk jàpp nga ni réew mi dara waru la ci soo waxee ñu la mi politique bi lii politique bi mooy dem Europe ñëw te boo demee Europe nga am ay milliards da nga ko dugal ci banque bi rek tek ko. amna fukki million ci banque bi. nga ci am soo sa nijaay ni la may ma 500000 nga jox ko sa cest li nga wara mom fexel ba nga mën ko xamni ci bir keur gi nga war tambalé dok ko waxa ci penc bi. fatu loolu tamit action la bo xamni il faut nit ñi bàyyi ko xel. xamni amna lo xamni wajur yi la way amna lo xamni xale yi la mais xale li gëna ndaw moy xale li ëpp nak wajur yi la. ndax xale boko gindiwul. ba mu xàmmee. Mhm. du xam fu muy teg tànkam. dëgg la du xam fu muy teg tànkam. léegi nag waajur yi ñoo war a bàyyi xel ci loolu xool nan la ñu mën di waxtaanee xale yi parce que léegi tey jii toll nañ Sénégal foo xam ni. man mii nangootuma nga yar sama doom. Mhm. yow mi nangootoo ki yar sa doom. Mhm. fu mu ne nii da ngay dóor doomu jàmbur léegi mu yóbbu la police. jarul wax. kon am na loo xam ne ñun ñoo koy xañ suñu bopp. moo ñu jural lii tey. dëgg la moo ñu jural lii dëgg la waaye nag bàyyi bi la mel na Sénégal dafa metti ndax xale yi boo waxee ñu ne Sénégal dafa metti mënuñu fee réaliser dara ndax euh, ki ma lay wax noonu euh, dem na ci ba nga xamante ne tey dafa dafa bëggoon yóbbaale copain mhm. mais mel ne euh, paas yi moo ko gàllankoor mhm. copain bi ne ko demal booy soo demee xam naa ne yow noo mën a def ba ma ñëw fekk sa la dinaa ñëw ndeysaan xale bi dafa jooy sama copain des na ci géej gi waaye man teggeegu ma samay jaaj pour dem ci géej gi xam nga maanaam xale yi dañuy euh, macha allah ndeysaan euh, xaar mbay ma jaaga yal na ko yàlla gën a may wér ak gudd fan way na ko nee na xale yi ku leen juróon yërëm leen mm-hmm. benn mbubb benn chemise benn mégo cigarette téeméer bokk ko mm-hmm. suñuy ataaya ko dise mais dëgg la dëgg la xale yi dañoo sonn xale yi tey tey bu élection jotee ñoom ñooy fal ñooy folli mais pour quelle raison ñi nga xamante ne ñoo war a taxaw saytu leen bay bi la taxawuñu mais usines yaa ngi fi ñu rey ba mu dee pourquoi dekk lu ñu usines yi xale yi liggéey ci di ci force seen wërsëg ñu ci baree baree bari ba la ñuy takkale cinq cent mille suñ la waxoon fu ñu jaar dem di manoeuvre journalier di def 3000 francs par jour di ko bokk ay nat soo mburu caaf ngay añe soo ñibbee fondek tega dege ngay ngay lekk guddi gi di jël loolu di ko épargne gis sa benn natt bokk ci soo ko teggee sa xel demul lu dul dem voyager ndax loolu tey soo ko téyewee fii bala may am un mois nga lekk ko bay bi man contre ma xale yi de seulement que dama leen a yërëm dama leen a yërëm ndax meew mu wayul la meew mu wayul muy tuuru macha allah boo gisee taatu tefes gi baay bi leen ni muy mel am na ci xale boobu nga xamante ne ba mu ko gisee ak na mu dëppoo hmm. ni mu jëngale tubay ji daal ya mu sol dëpp t-shirt ba mu sol noo non dama ko yërëm dama jooy te nag nit ñi ñi ngi ci bàggi seen solo di ci wax lu ne eh, lu ne la ci nit ñi di wax Fatou est-ce que naa nga lan ci dégg hmm. li ma ci dégg mooy dañ ne xale yi doon manifeste te nervi yi rey leen ñoom la ñu jël defoon leen ci benn bateau congelé leen. yooyu ay wax la man gëwuma loolu. sénégalais yi nañu bàyyi lu ñëw ñu teg ko état bi. la non non moom xam nga. amul gaal yi ñi ngi dem. waaw gis nga xale yi. ngi dem ak gogo. naa la wax de xam nga booy li ma la wax nii. li hmm. nga wax sànq laay dellu si. Hmm. xale yi dañuy am na ñoo xam dañuy cotiser. Hmm. di jox seen pour seen benn waay dem. dëgg la. man fekk naa booy ñu ay booy jakarta man la ñun dañuy cotiser pour jox kenn mu dem. Mhm. man leen d'accord. Mhm. ma bàyyi leen ba ñu kii ma woo benn booy bi ma waxtaan ak moom ma ne ko boo sottee bul dem te soo xaalis la ko jox pour nga dugg maa ko bul dem bu la sottee wax ko actuellement nii. yor na ñaari taxi ak juróomi jakarta. <coughs> dégg li il est à l'aise. Mhm. so saa yu mu <coughs> rombee man dama xam ni xale yi dañu amul ku leen di conscientiser am nañu xam-xam am nañu xel. mais ku leen coach la ñu amul. mais est-ce que xam nga ne bàjjenu gox dafa am waaye bàyyi gox am na da yow bàyyi gox nga. waaw ñu ngi si mhm. nga xam nga man su ma gisee mbir. te loolu dama koy ñaan sénégalais ñu bàyyi ko xel. Mhm. comme li nga wax léegi gis lii andi loo xam ni ni nervi yi la ñu déedéet bul bul bul aggraver problème. Mhm. apporte une solution dangay ngay andi lu saafara problème bi. man su ma gisee problème damay xool lu ko saafara. dëgg la man noonu lay doxee. dëgg la problème bu ma gis. sa à dire dama koy répété waat léegi mooy xale boobu ma dévier si tukkeem mhm. ba mu mhm. tekki mhm. dama dama fier ci moom am na ci koo xam ne Guinée équatoriale laa ko jëlee mi ngi dëkk Grand Thiès fii papa ma ngi fi papa ji saa yu ma ko rombee dafay làmb xool si wet bi day mel ni lu mu lu mu lu mu la may jox parce que dafa ni ma da maa dimbali ci sama doom barke yàlla Guinée équatoriale man kon su ma nee xale yi dañu ñàkk ku leen waxtaanal ku leen kot c'est-à-dire damaa xam ni ñu ma coaché man réussir nañu ay doomu jàmbur rek dama leen di coach ba ñu tegu naa ci lim ay tur yoo xam ne ñi fii di ma xool di ma dégg mm-hmm. waaye du ko jar mm-hmm. waaye am na xale yi sa biir kër mm-hmm. boo coaché booy yi dañuy tegu ci axe man samay du si cest à en tout cas li nga wax la yal nañu yàlla def bàyyi gox waaye soxna Fatou yàlla def na la ko yokkal sa loxo rek gën la yaatu bi dafa parce que gaal yi parce que toujours xale la ñuy accusé dañuy fàtte la sabab loolu xale yi xale yi xale yi amuñu xale yi. jom moo gis nga jom bu la xanaa xamuloo jom dëgg moo mag ñi. Mhm. soo seetloo mag ñi bu yàgg da nga daan bay tool ma bay tool. kii bay tool ñu nekk ñetti ñetti borom kër yu nekk ci dëkk bi. Mhm. ñu bay tool yow sa tool naat kii toolam naat man sama tool booy ma xaru. c'est pas possible. ah oui mag ñi li may wax ni mag ñi xam nañ ko. Mhm. parce que sama tool booy na dañ naan man aw ma jom ndax bayu ma. c'est pas possible. booba jom la jom googu nag lañ moo nekk ci xale yi. ci bëgg tekki. wallaahi donc il mag ñi nag ñoo leen war a mën a bëgg tekki nii ngay tekkee mooy da ngay entreprendre ah, nekk entrepreneur sa biir kër xam ne da war a raxas ndab jàppale sa yaay toppatoo sa rak boo ko mënee ba mokkal ko foo dem da ngay liggéey. wallaahi foo dem dangay ngay job. wallaahi mais soo ne mosuloo ingénieur agronome ngay gis au Sénégal mu dem toog ci bureau mais bureau kenn du ci bay. ingénieur mécanique bu toog ci bureau mais bureau amul oto booy defar. cest à loolu mooy suñu problème. ingénieur la wala diplômé la nangam. ingénieur agronome si àll bi la war a dem. mais si bureau bi lay toog. bureau bi du bay xam kay nekk ci àll bi di bay xamul bay mais yow da ko jàng ba mokk. loolu mooy suñu problème loolu la ñu war a yar ci xale yi. xale yi encore une fois la responsabilité mag ñi la. Mmh. yaruñu xale yi ci diine. Mmh. yaruñu leen ci àddina. Mmh. yeewuñu leen. Faatu lii ñett ñi bokk na ci lii motiver gaal yi parce que bëgg tekki jom moo si jom lay lalu mhm. jom ki am jom rek moo naan damay tekki wala ma dee mhm. ku ku am jom koy def mhm. mais naka la koy defee mag mee ko koy jàngal naka la koy defee wala yoon wi muy mag mi mook koy rëddal ndax li may wax ni xale yu bari xam nañ ko te mag ñu bari xam nañ ko ndax li ma la wax la rek mooy li may wax rek cest à responsabilité. xale yi am nañ ci pas de responsabilité. mais bu ndaw lañ ci am mais kat lu ci ëpp mag ñi la ndax mag ñi ñoo war a kot ci xale yi ci biir kër gi. yee leen ci biir kër gi yar leen ci biir kër gi. ñu mën a xam nan la ñuy doxee ci mbedd mi. mais bu ñu leen yeewul yaruñu leen ci biir kër gi bu génnee ci mbedd bi ni mu gis ñëpp di doxee day jàpp ni noonu mooy doxee. te léegi internet bi. yar na nit ñi te internet bi mënul yar kenn téléphone yi yàq na nit ñi àdduna bi yàq na nit ñi. Mm. loolu moo tax xale yi encore une fois damay wax mag ñi. nañu delloo nit ñi delloo seeni dom yar leen ci diine waaye yar leen ci ak yewu ak yete c'est très important ndax nit même bu yewul du mëna xam diine dëgg la même bu yewul do mëna jàng lu sa bop kon nañ leen nañ leen yé yar leen ci yewu ba xale yewu mag ñi noonu lañ doon def dañ daan ba guddi ñu wo koñ bi wala wo kër gi di leen waxtanal di leen lebal lépp pour yete la wala di di léegi mën na changer mais nga leen di waxtanal lo xamni dañ leen éveiller mais léegi loolu amatul kenn amatul jot toog di waxtaan ak sa njaboot. loolu faatu bokk na ci li nga xam ne moo gën a motiver boy amatuñu repère. moo tax émission Kër Yaa Oumy bi soxna si ni mu nekkee repère dama koy dama koy répété. war nañu mën a fexe am benn repère bu mel ni soxna faatu repéré wu ci yow di dox. kon amaa amaana da mel ni nit kuy dox yor torche. fa di nga gis foo jëm. macha allah waaye boo yorlee lampe nag doo xam vraiment foo dëgg la kuy nañax nañax rek di dox ci lëndam doo xam foo jëm. est ce que xam nga ne man di toog ak yow di def émission daf ma neex parce que dama siy jëlee xam-xam boo nga xamante ne day am loo nga xam ne day lëndam sama boom <laughs> mais saa yu toogee day leer sama bopp macha allah foofu laay waxee que ne ku yarawul doo mën a yare ndax am na wayjur yoo nga xamante ne bu yemal xiyaamee suñu borom bi dinañ leen laaj nan nga sàmmee woon sa njaboot mhm. dama bëgg ci kilifa gu nekk ci kër di doxal tànku kilifa dëkkal say doom di leen dundal macha allah ni nga war a dëkkoo sa soxna ndax doom da koy dëkkal di ko dundal mais ko nga xamante ne ci mbedd lay lekkee mbedd bi moo koy yar comme ni nga koy waxee saa su ne macha allah booy julli dégg nga nodd fëkk nga sa sijaada kàbbar nga julli dama bëgg nit ku nekk am ay responsabilité nit ku am responsabilité ci këram bu julli jotee yow mi nga xamante ne yaay ko góor ki taxawul sa njaboot gu góor bul si bañ dara dóoral kurfañal maa ngi ziyaar bu baax sama baay ba ca àjjana fi kooku macha allah yat la daan yor di fëggee moom la daan fëggee xale yu góor yi mhm. ndeysaan sama benn frère da daan tëdd bu ko fëggee dem ñëw mu defe ne mi ngi julli mu tëdd ci kaw lalam di julli ba mu ko naandee buntu ba daa ji fekk ko fa moom da daan xeex moom ma la woon waaye bëgg naa kilifa guy dóor ay doomam di leen bàcc bàccal jugal nga julli surtout xale ba xamagul dara bu dee jigéen bàyyi ko way juram bu jigéen mm-hmm. ndax yow miy góor man dama dama contre sax góor gu taxaw naan doomam bu jigéen jugal julli mm-hmm. xamoo ko jigéen ki fan la toll mm-hmm. ci wàllu setam ci wàllu mbaaxam fan la ci toll kon mooy xam jigéen doomam bu jigéen mais way jur bu góor toujours mooy xam way jur bu góor kon bu fekkente ne yow da ngaa jël say doom yaroo leen ci yoonu siraatal saxim baleen am na ñoo nga xamante ne tey seeni i way jur bu ñu deyee si gaal gi sax ñu xam ndax ci lañ demoon wala demuñu ci xam nga lu tax da ngay ñëw yor benn néeg walla nga fekki sa soxna kër yaayam mhm. ñibbili ko ngeen nekk fa nga gisaat ma paate takk kooku takk fee muy téeméeri jigéen ku ne tas mënoo leen a contrôler bennum ne nga yor amoo foo leen dugal tey sa doom bu jógee ne maa ngi dem fanaani sama kër xarit bu fa defoon deux mois doo xam ci lu mu nekk bu juuxee ci kër ga da ngeen ah yow kat gisuma la fan yi mun la papa xam naa li may liggéey damay guddee garage wala nangam nga bàyyi kooku ba am un doo ko ah, xam moo tax man la parents yi ci côté boobu lañ fa amee euh, ah, part de responsabilité gis nga dogguma la pardon je te coupe pas la parole mhm. daf si am benn waay sama benn grand la mhm. dama koy tudd vie Diallo la tudd mhm. dama man dama ci loolu doomam ba université du toog mu ko deux mois demul université laaj ci loo ne. dëgg la da ngay liggéey sax mu xëy di lijjanti ci li nga ne su ma waxee mu leen hey man maay seen papa tant que maa ngi dund. sama mm. ordre ngeen di nekk. du ngeen major sama kanam. actuellement nii il est à doom yi mag nañu ndax mag la sama grand la kon mag la. Mm-hmm. doom yi dañuy liggéey mais fu ñu mën a ne ci biir dakaar bu ñu wàccee danañu ñëw si kër gi report. mooy def rapport woon ko ni papa maa ngi fi liggéey naa tey li laa def nuyu ko siyaare ko nuyu seen yaay dem ñibbi amuloo sañu loo boo xanaa nga papa du ma ñëw parce que njox ko leer nee ma man noonu laa yare samay doom xam nga ko il a réussi il y a des gens réussi parce que dañ dul essayer dañ dul entreprendre mais boo essayer entre euh, dama koy citer muy euh, dama koy nuyu di ko jaalewaale mm-hmm. euh, sëñ Moustapha Guèye mooy Idrissa Guèye mm-hmm. sama xarit Mm-hmm. di ko jaalee frère bi gaañu Moustapha mm-hmm. di wax yal na suuf sedd ci kawam mm-hmm. waaye dama koy wax lenn suma ma jàkkaarloog moom dama koy wax yéen seen papa góor gi xalifa allah sama làmmiñ dafa réussir si njabootam démb rek maa ngi ciy waxtaan te loolu mooy noonu la réussir si ay rakam noonu la réussir si ay doomam nu installé loolu kon boo jéemee da ngay réussir Omar Sow am naa benn boy il a réussi ses enfants te loolu dafa lii ma lay wax nii noonu laa koy waxee samay doom. Mhm. noonu laa koy waxee ñi ma jege. Mhm. te loolu ku essayé di nga réussir ndax xale yi bëgg nañu baax. Mhm. ku leen jàppale la ñu amul. ku leen jàppale te waajur leen. te eh, sëñ bi day wax nii lu yàlla yaatal. doo ko xatal. yàlla yaatal na suñu xol yi. ñun Sénégal jàmm lañu xam. senegal tey jii ba tey jii. li dëkk bi di jaxasoo jaxasoo. boo duggee si kër gi di may la ma ndox ñu may la ndox. waxtaan bi mën na am ci biir quartier yi. Mhm. mais nañ ko organiser. Mhm. nañ ko organiser. Mhm. dimbali xale yi jar na ñu wuti ay ay wut ay ay ay séminaire. di waxtaan ak xale yi. Mhm. conscientiser leen yee leen. Mhm. wax leen ni tekki du géej gi rek. Mhm. tekki du Europe rek. tekki mi ngi fii Sénégal. bay sa webi tànk jàngal leen loolu ba ñu xam ko. loolu Fatou bëgg naa tamit nga def ci émission spéciale. ñu waxtaan ci lu yaatu. ndax bay sa webi tànk. dafa am njëriñ. Rachid mii maa ngi koy sama doom la maa ngi koy nuyu bu baax a baax suñu technicien bi. tey ji moom xam-xam bi mu am. bu demoon Europe il sera milliardaire. mais da koo jaayante toog. li mooy entreprendre. di xoslu. mi ngi xos lu muy metti muy dëgër yenn saa yi mu am benn tuuti yenn saa yi mu am nangam te wóor na ko wóor na yàlla tey jii mën na dagg billet dem Europe te bu demoon dafay tekki na xam-xamam bi lii mooy am jom ba pare bëgg tekki mhm. waaye am jom bëgg tekki da ngay dem de gaal ga mhm. dañ la fekk ni préparé wuñ la en conséquence kon yal na yàlla dimbali ñu may ñu kàttan bu ñu mën a préparer en conséquence mhm. vraiment les jeunes la amiin yaa rabbal alamin macha allah mel na ne tey ji waajur yi dañoo war a taxaw am taxawaay bu baax am seetlu képp sax koo nga sa doom dugg ci gaal yi nga xamante ne yow yaa ci ànd ak moom na ko seetlu ndax tukki dañ koy seet ab sëy dañ koy seet macha allah seet yoonu ndox bi ndax tey jii bu ciy dem du am gàllankoor ndaxte kenn mënul ne tey ji sa doom ji doo ko bàyyi mu tukki te doo jël poosam di ci def dara xale yi dañoo sonn encore une fois waaye nag tey man bu ma amul jege ñaale wala muy sama doom mu bëgg a dem ci gaal gi dinaa toog waxtaan ak yow ne ko nit ki gémmiñ gu yàlla xar dina ci hmm. def te ku dund ba déwén di nga ku ku ku ku euh, dund ba déwén di di di nga di nga ni ko olof waxee di nga lekk ba déwén macha allah gémmiñ gu yàlla xar def ci ndax lii ñuy def metti na torop bàyyi ak seen wooy jur yi njàqare bàyyi leen ak tiis bàyyi leen ak góomu xol dafa metti xale yi laxasuwaat leen ngeen liggéey ku ci mën a tonni mbali tonnil mbali ndax bu ngeen demee Europe bañu leen fa dara mm-hmm. yéen a ngi ci tool yi di witt tamaate yéen a ngi tool di witt raisin waaye di witt ay pom tey bu ngeen demee ci ñaay bi fii mm-hmm. da ngeen di am ñaayu mbooro bii rek ku dëkk Thiès wala ku ku ko jege di nga dem si ñaay bi supame baa nga fa mhm. tamaata jaa nga fa soble sànq waaye de terre baa nga fa ngeen toog seen way juri di leen dalal lem xel macha allah bay bile ñu ngi signalé que ne li ñu dese woon ci waxtu àgg na ci càppaandaw gi dafa am lu ma lu ma lu mhm. mhm. man maa leen di ñaan ku ci bëgg tukki balaa ngay tukki na nga fex nga contacté ma ñu waxtaan bay bi lay bi ci des mooy sëriñ si ak mhm. labbe yi dañu ni nañu dem bay mhm. ñoom ñëpp sëñ si di maxtaar ak sëñ Mahi Niass ak mhm. sëñ Ababacar ñëpp dellu nañu ñu si bay mhm. donc nañu delluwaat ci terrain boobu mhm. léegi nag li ma lay nettali benn anecdote la Ibrahima moo ma ko sama doom comme maa ngi koy nuyuwaalee sama xarit la nag sama dom la mooy sama taaw mais sama xarit la nee na dafa am ay booy yu jël du mot téeméeri booy dugal leen si ben gaal encaissé leen quatre cent mu dem ba génn ba gaay gisuñu Dakar rek nee na ji daw trois jours si biir dex gi si géej gi ñëw ba Dakar mu wàccee len rek nee gaay gis lampi rek guddi mu ngeen Europe nee na mu leen wàcc leen daw nee na booy wàcc daw nee na génn rek naan naan lan nu mu koy waxee pa xaw ma déedéet kii la wax <laughs> Cambérène Cambérène mu ni xoolal Sénégalais yi rek foo dem fekk leen fa c'est-à-dire anecdote la mhm. mais que gars yi tam noonu la ñuy encaissé di la rey noonu la leen encaissé di la nax barke yonent bi duñ la yóbbu am na yoo xam ne bu dañu leen dawal ba sonn ak yóbbu leen mbuur wala Gàmbi ñu seen kor bu ñu wàcce leen daw fekk demuñu fenn te doo ko mën a nettali mais loolu àq la li si nekk moo cest à boo defee enquête euh, encore une fois dafa am loo xam ne ñun xam nañ ko ci ndax commission bu sécurité bi si laa bokkoon si dialogue bi am na lu ñu ci xam ñi mooñ ko teg ci pénc mais dama lay wax li ci nekk kenn mënu ko wax mhm. maa ngi jégalu bu baax a baax tàggatool tàggatool bay bi kon maa ngi nuyu ñëpp nag uh-huh. di wax ni képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi mhm. ñi ngi lay ñaan mhm. émission bi na nga ñaan mu gën a sax waaye nga ñaanalal ñu NJ waaye ñaanalal ñu suñu doom ji Rachid ñaanal soxna Fatou mi di invité képp koo xam ni sénégalais nga. Mhm. wala ngay seetaan télé bi. Mhm. man de Baye Billé disponible mhm. parce que man éveilleur de conscience laa nag. éveilleur de conscience la yàlla def na ma ko. te réussir naa si. ndax charité bien ordonnée commence par soi-même. samay njabootu bopp. maa sant yàlla ci samay rakk ak samay doom. li may wax nii ndax nit ñi dañuy wax lu mu la wax. xoolal ni mu mel. waaye man samay njaboot ak samay rakk macha te ñeneen am na yeneen doomu jàmbur yoo xam tey ji ay procureur lañu yàlla dafa maa dimbali man ak ñoom jaxasoo ñi ma si booleel ñoo xam ne troisième lañ doon def fekk am na koo xam ne directeur Athieri Bank keroog ngénteem damaa jooy damay damay nettali rek wallahi azim moom mooy directeur bi liggéeykat yëpp toog bi ma ñëwee toog dafa jooy ne la man yàlla binduma bàyyi bi la ma ma bind ndax fa ma ko jëlee la ak fa ma ko dugal loolu tawféex la si ñun damay ñaan xale yi man mën naa waxtaan ak ñoom parce que nit ki wax ko lu mu gëm. di invité ku ci bëgg faatu mii bu ne ma boo ko woowee dana ma woo dinaa man dinaa déplacé suñu ba si waxtaan parce que waruñu dem si géej gi. te dañu war a entreprendre defar réew réew mi yéen yéen a ko war a defar mais ñun ñooy seen xel yéen ay doole ji. kon la jeunesse asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu nag sama yaayu bopp mère Mignel ak mère Thiané si ak samay soxna waaye Ndeye Fatou seen nañ ko nuyu. macha allah ak soxna Awa Fall. ñaar ñu bëgg nañ la lool. macha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah. <laughs> jërëjëf nee naa yow di bokk ak yow plateau toujours dafa may neex ndax toujours dama fiy jëlee loo nga xamante ne avancement lay doon si man waaye yokkute lay doon si man di la ñaanal rek jàmm ak sutura ni nga dëgg say tànk ba ñëw fi yàlla delloo si jàmm ak salaam yow moom suñu caamiñu bopp nga macha allah te li ma wax li ma ko waxee noonu la ko Assa Badiane waxee waaye di nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, di jaale. waa nga Ngayeen depuis Somme macha allah famille Ngayeen di leen ñaa di leen jaale euh, soxna su baax soo su nga xamante ne euh, Abi Ndooy la woon macha allah. génn àdduna matagul sax une semaine ma koy jaale doomam yëpp gala gay ba si caat mi bugguma gay jaale naa la ko ak alaaji gay macha allah di ko jaale libaas ak toute la famille nga yéen di ñaanal euh, maire abi ndooy fa mu dem yàlla na ko gënal fi mu joge yàlla na dee di noflaayam macha allah te dee gëj fi lool macha allah yàlla yóbbu ko ci barsax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allah waaye di nuyu Ndeye Fatou Cissé bu baax a mm-hmm. baax Ndeye Fatou Cissé bëgg goo gis naa la ziar naa la bëgg naa la ndax baay bi le macha allah waaye Awa Ndiaye ah Awa Fall kenn du yow si mim réew nga ma woo téléphone ne ma dama laa bëgg maa la raw je te love ma chérie bëgg naa la torop torop torop macha allah waaye di ñaanal sama yaay yaxari ci yaay maay xaatim gànna xaali mu ndaw ak mu mag xaali mi ci raay bi ak xaali mi ci kër alaaji baro jigéen yal na yàlla fëgg sa bopp ba nga jóg delluwaat sa sago si sa amadou te xam ne ñaar yaa ngi may fekk si fii bu baax a baax surtout sama baay bi aw fante de sa barke bi waaye di ziar bu baax am di Moustapha saar ma gi bas macha allah sa xel sa xalaat ci man sell na rafet na yal na la fi yàlla bàyyi ba raamaan amin yaa rabal alamina macha allah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi doon bëgg di ñu seetaan rawatina suñu collègue boobu di Assa Badiane macha allah waaye di ziar bu baax di sant bu baax équipe technique bi nga xamante ne Rachid moo ko jiite Rachid mu engi njegeen macha allah yokkute ba yëg ko kama waaye di ñaanal isaam yi fépp foo leen bëgg a àgg yal na ngeen fa àgg waaye di nuyu bu baax nag sama doom Abdourahmane saw macha allah borom Kassas TV di la ziar. di ñaanal bébé bi yal na ko yàlla def muy mag tey mag mu am ñoom yaag sa soxna social sokkar loolu leen asamaan suuf di leen jox dig daje ba lundi incha allahu rabi ci àggale suñu thème bi rek te di leen wax ne leen képp koo nga xamante ne soxla nañu ñun ñi nga xamante ne ñooy def émission Kër Yaay Oumy na contacter numéro bi muy gis muy daw ci bar écran bi ki muy jot incha allah numéro kum ci soxla dina dina la ko jox boo bëggee nga dem toog waxtaan ak kooku te xam ne ñun yéen lañ fi nekkal ñi nga xamante ne dañu bëgg am ay njaaxare am tiis am naqar wala ñu am mbégte te bëgg ku leen ko fësalal yéen yéen a ñu fi daj mhm. numéro yooyu di daw si baat écran bi képp ku si contacté boo ma soxlaa wala nga soxla bile wala Astou Badiane ki ngay jot dina la ko jox incha allahu rabbi di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba lundi incha allahu rabbi suñu eggale émission deuxième partie wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu